nuy na ma leen bokk auditeurs yi da leen gis na jukkil leen li gën a fees ci ëtulikaay talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai bokk na li ci gën a fees li nga xam te moom moo di mbirum Fallou Sène di étudiant boobee ju boobu foofee ci université Gaston Berger foofee nag ak mbir ma nag na mu toll ak Macky Sall mi nga xam te jot naa dema ci mbir boobu ak kaddu yëm fa yëkkateeg lam fa jot a def ay ca ubbil yéene kaay bi di la témoin nee na nag moom it nag ça bouge dans le dossier de Fallou ne nag Fallou ak nga xam te ne moom moo di enquête bi la mu maanaam première enquête résultat yi njëkk yi nag transféré nañ dossier bi nag indi ko ci Dakar tribunal ma lu mu demee ak lu mbir ak décision mbir mi nan lay demee ak yoo xam te ne nag force de l'ordre yoo xam te ne nag yëkkati nañ ngir sécuriser restaurant yeeg université yi les étudiants de l'UGB ñoom it nag ñoom it ci biir yéene kaay bi nee nañ nag pare nañ nag li nga xam te ne mooy restauré waat li nga xam te ne moo di bourse yi mooy nag ne nag rebours bi nag daal di nag déclenché nag ndax dañoo bëgg a feeñal ki nga xam te ne nag moom di Fallou Cissé yéene yi laas yéene ba tey ci mbir boobee ne inspection générale d'état du IGE moom it nag effectué nañ li nga xam te ne moom di descente ca Sénar ci alxames gi ñu weesu nag ngir jàngat li nga xam te ne nag moom di situation bi foofee ca université Gaston Berger Saint-Louis waaye nag di ko dale ci alxames gi ñu weesu inspection générale boobee mi ngi tàmbale nag enquête bi ngir nit niitaat leeralaat li nga xam te ne moom moo di jiixi jaaxa ci li nga xam te ne moom moo waral tardé ak li yéexal li nga xam te ne moom moo di paiement bourse yi ak li nga xam ne mooy yéexal fay bourse bi loolee nag bokk na la ci ji tot mujjee wadd ci ordre du jour bi ci université Gaston Berger waaye nag malheureusement génn àdduna Mouhamadou Fallou Sène loolee la Soleil ba engagement bi nag jonte lañ ko joxe nag ñett ci weeru avril li loolee direction bourse nag loolee la transmettre li nga xam te moom moo di paiement bi jàll na lu toll ci ñaar fukki fan na ci weeru avril maanaam le 20 avril 2018 loolee nag la yéene bi wax ne nag lu toll ci 5 milliards nag jot nañ ko détourné ci étudiants yi ak étudiants la quotidien yéene kaay xamle waaye nag incohérence am na loo xam te ne tolloowul jubóowul te xel ba fësal li ni mel ne benn benn ñaari ñu njëkk ñi nag jot nañoo daanul vox populi ne may ma tuuti nag buñ cité nag li nga xam te ne moom mooy waa UGB bay dalaay kan moom it nag remplacé ki nga xam te ne nag moom moo di Ousmane Thiaré moo ko remplacé waaye nag Ibrahima Diallo moom it nag ki nga xam te ne bu kurus Ibrahima Faye moom moo ko remplacé remplacer bopp yaa ngay daanu leer na nañu l'observateur yéene kaay ne Baydalaay Kana moom ak Ibrahima Diaw ñoom ay recteur foofee ci université Gaston Berger jot nañ leen ak kat ji wëllëbët génnee leen ci biti nag ca centre universitaire bu Saint-Louis fa foofee waaye nag diggante boobee nag ñu xaare li nga xam te ne retour calme li nga xam te ne ñoom ñoo di jaayee foofee ca université ba ngir ñu mën a jàng waaye MMO waa Kana Diaw responsabilité pédagogique yi bu Saint-Louis ba foofe li ko dalee ci fukki fan ak juróom ci weeru mel woon waaye nag doy na sëkk la cloche yéene kaay ne nag bi du ci génn ku njëkk nga njëkk a pare waaye nag la guerre fait nekk lu yomb te it du sedd te bu fi nar a sedd ñu bokkoo loolee mbiru politique la ak bataille la boo xam te ne dana feeñ ci biir 10 millions de francs CFA ñaari billet d'avion Makka aller retour ak promesse maanaam liggéey ci biir fonction publique loo Aminata Tall di président conseil économique social boo xam li ñu mel la démb foofee ginnaaw ba Macky Sall demee ca kër ga foofee gis seeti nag njabootu Fallou Sène loole enquête yéene moo wax li ñu mel ne ki fi nekkoon Ilimane Diallo ni Idrissa Seck di njiitu di xam ne transformer les cases en terrasse et d'y ériger une clôture en mur loolee la Idrissa Seck wax nag daal di nag yëkkati lu mel ni xemet teg ko ci ndodd Macky Sall du ma jaar les postes de Mouhamadou le Sène continue de recevoir en patar Diourbel waaye nag ay mbokkam nag ñi ngi ci tiis ak bu du l'observateur de même ma ma tëcc mbir bi foofe ginnaaw nag bi président Macky Sall nag ba mu demee seeti leen foofee nag yëkkati nag njaal bu duun nag daal koy fay teg loole nag ginnaaw ba mu demee nag la Idrissa Seck nag nekkoon fi Souleymane Jëriñ daa di fay jaar may laajte mbir mi ba xam politique la am du politique ak lu lalu ca gannaaw daw na wasala